bañ jógee Washington dellu siwaat nañ New York xëy daal di départ wutali euh, Detroit Detroit taalibe yi euh, def nañ fa mbir ndax jël nañu fa kër Serigne Touba goo xam ne gi présenté nañ ko Serigne Mame moor kër goo xam ne gi yaakaar naa ne gisaguma fii ci Amérique benn daayira boo xam ne bi mun nañu wax ne kër ga sunu borom mayagum na la gunu mel ndax kër goo xam ne boo ko jëndee fekk fa fukki classe ak ñeent kon buñ ne jàngale mi ñu waxoon loolu kon waxatuñu ko nga fekk ci kaw saal boo xam ne bii trois cent cinquante ba quatre cent personnes mën nañ faa xaj kon saal ñooñu dutuñu ko wuti nga yéeg ci geneen wàll gi da nga fa fekk benn cuisine moderne boo xam ne bii lépp loo xam ne lii soxna yi bëgg nañ ko war koo mën a defar ci kër yi muy taxal loola léegi tegeeku na leen kon Detroit ñoom defe naa ne Serigne Touba wan na leen boppam te saal ba ci guddi ga Serigne Cheikh Gueye waxtaan na fa waxtaan waa am solo Cheikh Moustapha Mbacké wax na fa itam lu am solo mooy soxna Moustapha Gaynde Fatma mu jëm ci université bi ginnaaw bi nga xamee ne itam sëriñ Maam Moor jël na kàddu la mu njëkk a wax moo di ne confédération bi booloo goo xam ne gii sëñ bee ko bëggandul boppam confédération bi ànd la gu julli di war a ànd rawatina waa kër sëriñ Touba yi comme ginnaaw ànd munta ñàkk il faut nu ànd liggéey loolu defe naa ñëpp rafetlu ko président daayira bu ba mu jëlee kàddu it la mu wax mooy loola na ñëpp ànd ñu bokk ndey bokk baay ànd ci biir confédération bi liggéey liggéeyal sëriñ Touba buñ bëggee suñ njëriñ tey ak ëllëg. ñoo ngi leen di nuyu di leen ndokkule di leen massawu. Euh, ñu ngi tàmbalee ci mboolem ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ak ñi nga xam ne tamit ñoo jóge ci yeneen dëkk yi ñëw ànd ko ak yéen ginnaaw loolu it ñi ngi nuyu sunu mbokk yi nga xam ne ñoo fi doon jàng léegi xasaa yi ji si di sëñ Tuubaa yi ko ci seen mag di sëñ Fàllu Njaay waaye dégg it xale yi di jàng-jàng mu am solo te li may wax rek waxtu bu ne ma ne jàngalekatu jàngkatu xasaayit bu mu fas yéene nekk vedette boo xam ne looloo ciy jublu ndax dafa nekk responsabilité bu rëy euh, sëñ Tuubaa lépp lu mu wax ci ay message muy diirub liñ ko téye te nga xam ne xëy na tubaab yi buñ seetlu woon ne mboolem lu muy def ñu ngi koy bind xëy na dana duñ ko defee danañ seetluwaat seen bopp kon loolu dundam lépp ci lool la ci la waxeek nit ci la waxeek borom ci la waxeek yonent bi sallallahu alayhi ci la joxe li muy joxe lépp kon képp ku ci yëngutu bul def sa bopp koo xam ne dangay koy na nga koy def muy liggéey boo xam ne sa mbir mën na cee taxaw ci lu gaaw ci àdduna jëm àllaaxira kon na ko sellal moo tax bu ko dëggu gi dëgg am ci ci aw solo lool ku ci am jafe-jafe rek dafa am loo ci dugal waaye soo ko sellalee rek dana la yéege yéege bu gaaw kon ñu ngi lay ndokkeel sëñ Fall ak ndaw ñi nga xam ne ñuy jublu ci loolu